seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi dendee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra a Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen di may li ci yéene kaay cher gentede du enquête 221 dal leen jàmm dalet leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook bis jour mi del soit ci violence gi nga xamante ni amoon na le mars bi ñu génn yéenekaay bi dañu xamal di defante gi ndaw ngi doon defante takk der yi ci jamono ji nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi wuyu ca tribunal mujjee naa jur ay conséquences yu mag a mag ba mujjee jéggi dayo yéenekaay bi ñu xamal ne ba jamono ji ñuy wax ak yéen moom Dione ci autorité yi mu gën a gaaw nag balaa muy gën a ñaaw en tout cas mu ngi xamal na ci jamono bi nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi ne tekk tekkaaral nekk ca loolu hôpital ya ci le président Macky moom di doxantu ci mbeddum Ndakaaru yi mel na ku yëgul li xew ci réew mi yéen bi ne waxuma la moom sax waaye famem ci boppam la àndal booy seetaan vidéo mi yii ci week bi moom président Macky Sall nga ci centré leen kese la bi fi amoon le mars bi ñu génn Walf Quotidien moom ubbi xët bu yaatu ci acharnement bi nga xamante ni jamono ji ña ngi koy def ci Walfadjri di ko xupp ak dagg signalam ba noppi nag jël journaliste bu mag bii di Pape Ndiaye dugal ci biir kaso ba lii moo tax ci week-end ñoom waa Walfadjri nag mu jënd ñoo yëngatu Cheikh Niass di patron Walfadjri di xamle ci biir yéenekaay bi ne sunu liggéey danañ ko continuer def comme nañ ko doon de dëgmal moo xam Waly bi ñu xeex comme ni ndaw ñi di defee lii moo tax yéenekaay bi dañu xamal ne Ousmane Sonko fi dafa wéddee te ñi mu jàkkaarloo duñu ko may dara waaye fi mu toll nii ku am fit ba mel ne moom néew na loolu mu gis ko ci wetam rawatina nag ci biir Pastef vox populi bi xët bu yaatu ci defante gu metti moo nekk ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall yéenekaay bi def gi nga xamante ni mu toll ci jamono ji Sonko ci lay président Macky di profito génn ci terrain bii ci week-end bii rek gis nañ ko ci mbeddum Ndakaaru yi moom président Macky ànd ak première dame di doxantu mel kuy ñaawal président Ousmane Sonko ma tëdd ca la l'hôpital ba waa Pastef nag ñoom jamono ji bind nañ ab plainte ndax jàpp nañ na nguurug Sénégal gii dañoo bëgg jël bakkanu président Ousmane Sonko teg ci acharnement bi ñu dëkkee ci seen parti politique bii ak arrestation yi nga xamante ni mu ngi mel ne tulleeg laa la wax ci membre Pastef yi lii moo tax ñoom waa Pastef bind seen plainte ngir topp président Macky Sall ci ay tentative d'assassinat ci seen leader bii di Ousmane Sonko muy def ci ndaw ñi ñoom waa COSYDEP di xamle ci biir yéenekaay bi ne il faut que parents seen responsabilité naka noonu état bi ngir manifestation yi di ñàkk am ci biir réew mi ndax li ñu yëgul mu di am nay conséquences ni dina ndaw ñi l'observateur en tout cas président Ousmane nag jafe-jafe yi mu am fi mu nii ci wàllu bi yoon la moo ko tere génn ci réew mi moo tax yéenekaay bi deesuwaat na ci ca na mu gën yaatoo tey xamle ne pression Ousmane Sonko bii ba mën ko génne ci réew mi ci jamono boobu yéenekaay bu nga xamal ne Yarga Sy moom mi ñu tuumaal ne moom moo gazé Ousmane Sonko ci jamono bi nga xamante ni ñoo ngi koy jox ko Ousmane Sonko en yéenekaay bi desuwaat na ci arrestation yi nga xam ne fi mu nii non foo ko nattu weesu na ko ci jamono jooju waa benn bokk yaakaar mee kuy ñaawal Ousmane Sonko laa wax ci gat sa gat saam gii mu woote yéenekaay bi duñu xamal ne ci diwaanu xamle ne ñoom opposition bu mu neex la ñu defal Amadou Ba lépp ngir a dëggal nag deuxième quinquennat bi nga xamante ni président Macky Sall moom bi ak kàddu Amadou Ba muy encouragé responsable benn bokk yaakaar yi nga xamante ni juboo nañu ci doonu Kaolack te leen di xamal nag ne nii rekk la booloo leen nekk benn ngir président Macky Sall am deuxième moom Amadou Ba di xamle ci biir yéen bi ne bu dee ne président Macky Sall benn

diwaanu la dem na ba militant wu yeneen responsable benn bokk yaakaar yëpp bàbbee ànd ak Ousmane Noël Dieng moo tax moom gaynde ak Diène Farba Sarr bii di xamle ne ci sama loxo bi ne bëri ci ay bërëb yoo xamante ni dañ ko attaqué bokk na ci siège u APR e nekk ci doonu Parcelles Assainies waaye ndaw ñu bëri nag mujjee nañ leen kenn ci responsable APR e yi dellusiwaat ci bi ñaari takk der yi moo tax mu jooñoo yegg si waaye ñetteel bi dañoo armé wu yor seen i arme commencé attaqué siège bi man ki sama jëmi bopp maa wax élément de sécurité yi ñu daw balaa ñuy jël seen bakkan nii la duggee ci suñu siège bi saccagé ko waaye yéen mu ngi xamal ne caméra de surveillance yi mujjee naa fësal nag kanam bépp xale boo xamante ni duggoon nga ca siège ba moo tax kenn par kenn jamono ji ñoo leen di jàpp yéen bi amal entretien bu yaatu ak Nafissatou opposition bi ñun ñu koy ubbil buntu te ñun lépp lu ñu dund ci politique rek ci métit moom Aminata Touré moo ñu ko teg Nafissatou Diallo di xam ne ci biir yéenekaay bi ne fukki atu bi rawatina mii defoon laa wax en moom la Aminata Touré fi mu nii bëgg def te moo di victimiser wu ñun nag suñu position ñun waa PDS amul kenn koo xamante ni mën na tax ñu daat koy changer ndax bu dee ne waa Yewwi bi kenn imposé leen seen loi jamono ji nga xamante ne Abdou ndax li mu ñu teg ci métit laa la wax amul benn parti politique bu mu ko teg ci métit teg ci bu dee Ousmane Sonko mi nga xamante ni suba ngoon bëccëg mu nga yekk lu mel ni xamee Oumar Maham Diallo wala sax Serigne Bassirou Gueye jàpp na ay complice lañ ci dossier bii di Sweet Beauty mais ni mu amee position ci ñoom ñooñu te ñëpp nangul ko ko noonu la amee position ci Mimi Touré mu war ñu koo nangul kon nag duñu accepté te benn yoon ay manipulation laa la wax ci opposition bi mën nañoo bañ a bokk gis-gis mën nañoo bañ a bokk ay position waaye ñun ñëpp nag ci opposition bi lañu bokk la tribune yéenekaay moom des ñu leen loxo ba dugal ci biir kaso bi bokk na ci ay responsable ay gros bras wu Pastef ay yàqkatu magasin ba ci mujjee siiwal jamono ji yoon teg na leen loxo ba dugal ci biir kaso bi la libération yéenekaay di ko dëggal ne série d'arrestation kay fi nii la

defee dañu moo tax fi mu nii laa la wax réew mi dafa tagga téemé ci côté bu nekk ba suñu système éducatif bi jamono ji laa la wax enseignants yi dugg nañ ci grève ndax seeni collègues yi nga xamante ni jamono ji arrêté nañ leen dugal ci biir kaso bi moo tax CUSEMS ci tëral benn plan d'action di avertir nguurug Sénégal gii ngir ñu libérer enseignants yi ñu jàpp seen grève yi ñu nar ko tàmbale ci talaata ak suba gi nga xamante ni danañu ñu daal <laughs> yàlla baax na ñi yéen ak jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah.